yàllaan bi kum aali nguy njaay amul lu mu yàkkut njiiti réew mag Macky Sall ak waa këram allah Sud Quotidien moo ñu ko xamal démb fa doon dëggal candidature am waaye facaa caa porox ndoll dugg attaqué ñaawlu doxal niw njiiti réew Macky Sall ak ñooñam yaw seetal fa njëkk a xam le na suñ Sénégal gii mënta continuer di yaakaar ci waa bitim réew yi ngir mën a dundal askan wi fa wax ne ñàkk liggéey gi ci réew mi fa gën a garaaw fa gën a bëri ndax 2012 12 pour cent la woon léegi nag ñu ngi ci 23 pour cent ci 2022 bi Aly Ngouille Ndiaye fa wax ne ab état warta nekk ngàndaay ngir xeex ay adversaire politique yor yor a kaay na ko waxal wax ji faa bëgg mu leer Aly Ngouille Ndiaye xam nga lu mu wax fa wax ne fa ñoo a moytu di utiliser jëfandikoo justice àttekat yi ngir jaay doole wala écarter say adversaire politique loolu du dëgg du yoon le quotidien yéen a kaay ne donte nag Aly Ngouille Ndiaye wax na ne bilan njiitëram Macky Sall moom ca la bokk waaye nag Macky Sall moo ko ci ëppale téeméeri junne yoon fa caa daal di yokkaat ne élection yii kenn mënut ko yaa ngi wasaara say fichier de source ay yéen a kaay ne Aly Ngouille Ndiaye kay fa wax fi mu bëgg a jëmee Sénégal ko falee waaye laata muy noppi fa dugg attaqué njiit réew Macky ak nguuram ci seen doxalin ci réew mi nam nar a nag bu ko falee mu jiite moom Aly Ngouille wax na ko ca direct news info yéen a kaay dëggal ko na ko hay ambition moom la wax na fa caa yokk nag ne su nekkee président attekat fa ñuy moom seen bopp duñ nangooti président wala ku munti doon dimbale saw askan fa ngaa war a andi ay solution seen jafe-jafe xam liñ gën a soxla nga def ko waaye nguur goo xam ne fa ñuy tëñëx tëñëxe rek loolu baaxut day leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Amadou Ba démb fa wàccee Parcelles Assainies yéer tét tét mbooloo mu bari bay tuur fa rembat inondation ay doomu aadama foo ko natt weesu na ko enquête yéen a kaay moo ñu ko xamal moom Amadou Ba nag fa doon neexal ak a ngoro ndaw ña sones bi les si ko yéen a kaay dëggal xibaar bi les ko yéen a kaay na ko ah moo yey di base politique am la di Parcelles Assainies fa la doon dooree jot gi mu bëgg a jot Sénégal ba jiite ko Walfadjri yéen a kaay ne a démonstration de force wane doole moom la def démb moom Amadou Ba ca Parcelles Assainies fa koo rajaxe laa wax le soleil yéen a kaay ne mitinu Benno Bokk Yaakaar la woon Amadou Ba nag woo na fa ndaw ña ngir ñu ñëw ca wetam ñu liggéey réew mi bés bi yéen a kaay ne faa leen di wax leen gis ngeen guerre bu métti moo nar a am diggante Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba ak Boun Abdallah Dionne mënta ñàkk les si ko yéen a kaay moom fa xamal ne njiitiram Macky Sall daw na déedé fa deltu ginnaaw yaaw seetal nga waa PS yi fa ñoo lan moo tax parrainage bi ñi ko jiite njiitiram Macky Sall fa tànn waa APR jox leen ko ñoom fañ la a ñàkkal fayda léegi bi ñu meree nag oote réunion commencé tàngal ci la njiitalam Macky Sall deltu ginnaaw daal di jël Mame Bounama Sall bu PS dénk ko parrainage ba ca diwaanu Thiès mu remplacé fa Augustin Vox Populi na ko jeex a gudde PS ba nekk Tëngéej Rufisque ñoom it fa ñoo mer ba futtu fa ñoo wax ne duñ parrainé Amadou Ba Karim Mbeng ak ñam hàndal ñoo ko wax la mu ñu wax moom l'évidence yéen a kaay mooy ne diwaanu Kaolack ndangaan moom parrainage bi benn bokk yaakaar Astu Njaay meeru Njaafat moo ko jiite ci seen ndaje mu mag muñ doon amal fa la xamle moom Astu Njaay ne ñoo bëgg a dajale parrainage lu ëpp ñetti téeméeri junne parrain ngir jox ko Amadou Ba leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na tey ci altine ji ci la njiitëram Macky Sall di tabb gouvernement bu bees enquête yéen a kaay ne hee fa nar a am nag ay mbetteel ndax fa xam ay ngonk ponkal yu mag nekkoon ministre ci gouvernement bi weesu Macky fa leen a nar a kaj ji dàq football ca biti andi ñeneen yu bees leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne procureur général bi ñuy wax Mayrem Diop Gueye nga xamante ne fa taxaw défendre Ousmane Sonko na ko yaa nekk ci dëgg DGE ñu yor wàllu élection yi amuñ sañ-sañ bañ laa jox sa fichier nga dem uti parrainage du dëgg du yoon du seen cër conseil constitutionnel mooy tànn ku war a dem ak war a dem loolu nag procureur bi def muy ak njàmbarte ak wax dëgg ca tribunal ba tey nag source a moo ñuy xamal kan mooy soxna soosu di Mayrem Diop Gueye jaar-jaaram dundam carrière am nee na attekat la boo xam ne bokkut ak yeneen attekat yi ah ah ko fekk mu wax ko yéene kaay bi défendre Ousmane Sonko attekat ba moom laneen la def te mooy fa wax na Sonko DGE am nañ seen ñàkk laa jox say fiche kon kenn du la ko fi joxe la mu ñu jox nag moom yor yor yéen kaay mooy waxtaan wu mu séq ak Abdoul Mbaye bi fi nekkoon jiiti jëwri ni fa wax ne Sénégal fa toog jamono ji ci ab bomb boo xam ne de fa ñu yàlla bu mu kalaate de ki kalaate ay dëggam jëmale ko ci waa conseil constitutionnel du kenn ku may Thierno Alassane Sall moom it candidat yoon rek leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne guerre bu métti jamono ji moo am diggante réewum Israël ak Palestine vox populi ne Hamas mooy guerre ak Israël lu ëpp junney doomu aadama nag faatoogum nañ ci Walfadjri yéen kaay moom fa xëy àddu ci wàllu fisc bi léeg-léeg daal li ñuy wax redressement mi ngi bëgg a rey entreprise yu bëri fañ lay laaj loo xam ne doo ko mën a fay su ko defee sa entreprise ba fay mujj fay turbine yéen kaay moom fa xëy di ñu xamal ne yëpp dem nañ jaale ji Bougane Gueye Dany borom këram ba ci njiitëram Macky Sall fa ko xoo téléphone gouvernement bi Amadou Ba dem fa waaye Bougane Gueye fa wax Amadou Ba na ko faa bëgg ngeen taxaw def lu ngeen mën ba canceru ween yi ni muy reyee soxna yi wàññeeko wala mu dëñ fi te mën ngeen ko ndax faa leen di xamal ne sama soxna si moom i sekk canceru ween la xamoon ëpp na juróom-ñeenti at mi ngi xeex ak moom l'observateur moom fa ñoo xamal ne gaz ba kalaate woon ca derkele fi rayaat na juróom-ñetteelu doomu aadama libération moom fa ñoo xamal ne fa ñoo fekk ab nen na tuuti buy dund a kott ba tax sunu làmb yéen a kaay ne bii mooy juróom benneelu defet nag ci zos ni mënee xumbal ak a aaral waaye léegi ñu rey ko de ci làmb ji Ada Fass yóbbu na ko urgence de libération moom fa ñoo xamal ne xale bu jigéen bi tijji woon benn place wéef te ñu faatoon ko ca mbuur yëf yëf fi mu toon nii leer na xale bu jigéen ba Sophie Thior faram bu ñuy wax Moustapha Seck bu am fanweeri at nangu ne ne moo ko rey ca néegam ba pare génnee niiw ba sànni ko pour wane ne fañ ko agressé waaye takk der yi ni ñu bi ñu enquêté ba jàpp fa mujj na leen hëy maa rey sama gel bi ñu ne ko ah ko mu ne leen man daal faa ko ëmbal maanaam fa war na lor te man la maa ko def léegi ma ñëw na ko faa bëgg nga yàq ëmb bi sa fi coor bañ lii moo tax ma rey ko waa ma ne ah, yow xale bu jigéen bi ci boppam comme moo bañ na du yàq ëmb bi waxuma la yow far wi te wax na dëgg lii xam-xam na kay jarul avortement yàq ëmb déedéet léegi yow fa nga koo rey reyaale ëmb ba ñu jàpp la tëj kaso léegi nag fi mu toll nii xay fa lay xenu waaye ay su fekkoon ci lislaam lañ lay attee fañ lay rey de